bil alhamdulillahi rabbil alamin ya rab alladi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah wasalaatu wasalaamu ala sayyidi albashar sayyidana wa mawlana wa nabiyana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bokki daara ji asalaamaaleykum yu ñëw rekk sof fi nga xam ni falanu yemoon ci juddu bi ci gane àdduna yonent bi alayhi salaatu mu ni nag moom alayhi salaatu wasalaam ba mu ganee àdduna dañoo dagg lutt ba lutt mooy butitu njurukaay boobu nga xam ne mooy ànd ci jomboxu tu tànk gi yonent bi indiwul loolu indaalewu ko amina gisul ànd mooy loolu nga xam ni mooy ëmb doom bu nekkee ci biir yaayam muus moomu looluy ànd yonent bi indiwaalewu ko amina gisul loolu amina gisul deret su lenn luy nuroog sobe lu ko taq ba muy génnee moom alayhi salaatu wasalaam dañu ko tusngal waaw ba mu juddoo dañu ko tusngal dañu dagg lu tuba waaye dañu ko làggal maanaam dañ ko dugal néegub góor wa is ata kaana masruuran yuqaalu wa makxulan kama kaana maxtuunan bila alami kenn du yonent bi wa is ataa keroog ba mu juddoo moom alayhi salaatu wassalaam kaana nekkoon na masruuran di ku ñu dagg lu tëm yuqaalu wax nanu ne moom alayhi salaatu wassalaam keroog ba mu juddoo kaana makxuulan dañu ko tusngal bët yi la ko wër ñul kukk ashraful xalq kama kaana maxtuna niki noonu itam dañu ko làggal dafa dugg néegu góor moom la indaale bila alami ci lu àndul ak metit ci lu àndul ak metit kon yonent bi wa axrajathu nadifan ma bihi qazarun limla awaay limla wa min tibihi tatihiru lissutumi aha alayhi salaatu wasalaam ba mu génn ba mu ba mu ba mu juddoo ba mu juddoo nadifan wa axrajathu juddoo dafa ñëw set wecc maa bihi qazarun amul benn sobe dara lu ko taq amina gisul deret gisul sobe gisul lenn loo xam ni taq na yonent bi alayhi salaatu wasalaam ashraful xalqi mu ne nag lim la lim la lim la lu ba yonent bi ki nga xam ni wa min tat wa tibihi tathiru listutumi ki nga xam ni ku laab ci moom nga laabe ku set ci moom nga sete ku tedd ci moom nga tedde ku sell ci moom nga selle lan moo tax kon moom ba du am lii du ñëw set wecc ba ñu ànd ak sobe tey laab set sell tey laab set sell ashraful xalq kenn du moom bokk na ca ba mu ganee àdduna moom alayhi salaatu wassalaam def noo xam ni miinuñu ko woon ci ab liir buy gane àdduna mooy lan jóg toog kaaba gi sujjootal borom bi toog bank ay waaraamam tàllal baaraamu sànnikaay ba di sabbal boroomam di bàkk yàlla ak di ko màggal yumis sababata miqbadan asaabiahu mislal musabbix yarnul olwa dal himami aw za himami aha keroog ba mu ganee àdduna moom alayhi salaatu wasalaam yu mi tàllal na di junju assababata muy baaraamu sànnikaay bi miqbaadan mbir mu muy aji nëpp asaabiahu waaraamam ya mboolem waaraam ya da ko nëpp waaye mu tàllal baaraamu sànnikaay ba lu mu def mislal musabbixi kem kuy sabbal yow mi nga xam ni yaa ngi julli toog di taaya noonu ngay def tàllal sa benn baaraam ngëb baaraam ya ca des noonu la yonent bi def xool ca kaw aj bët ya zaahima mi muy aji am ji yitte muy koo xam ni la muy def danga koy gis xam ni kii du gan ci li muy def min na ko yàgg na ko def ashraful na ko def xam na li muy def min na li muy def ndax alayhi salaatu lu jiitu yàlla di bind jaam ñi lu jiitu muy muy tën aadama moom rekk alayhi salaatu wasalaam na yàlla ay millions yi millions yi at bëtt ay kiiraay xuus ay géej di sabal yàlla di ko bakk di ko jaamu ba yàlla tudde ko ahmadu mooy kii mu gën a sant ci jaamam yi kon bi mu ganee àdduna nag jëf-jëfin wu mel nii dangay xam ni kii kat lii muy def miin na ko xam na ko yàgg na koo def mislal musabbix yar na la da himami ja ca kaw mu ne yarnu ma ngay ja ma ngay ja ma ngay xool ca kaw asamaan al ulwa ca kaw asamaan zaahiba mi muy boroomu am ji yitte keroog lan la doon wax keroog lan la doon wax ba mu ngëbee baaraam ya waaraamam ya tàllal baaraamu sànnikaay ba ana lum doon wax jalaala rabbi rafiin qaala xiina ataa wa qiila sabbaxa fi takbiri zil azami aha xaala ma ngay wax xaala wax na xiina ataa keroog ba mu gane àdduna lan la wax rabbin rafiin jalaala rabbin rafiin xam nga liir su ganee àdduna bu juddoo uwee lañuy déglu ci moom uwee faw mu jooy Mustapha jaarul ci loolu de dafa juddu naan jalaala rabbin rafiin jalaala màgg rabbin buur rafiin ba di aji yëkkatiku jalla jalaaluhu loolu la doon wax keroog bi mu ganee àdduna ñu ne déedéet waqiila sabbaxa da doon sabbal borom bi naan subuxun quddusun rabbul malaikatu wa ruux naan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah fii takbiri ak boole kook di kabbar naan allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila léggal ma lii rek liir buy wax lii lañu lañu miinoon kay mooy uwee uwee uwee ñu ne ah liir biy jooy de waxul uwee waay huwa la huwa huwa huwa yàlla lay bàkk ndax yàllay huwa aarifiin yi loolu lañ wax de nee nañu daal liir bi naan waxul uwee de huwa lay huwa huwa huwa ma ngay bàkk yàlla ca turam ma nga xam ne mooy turu cosaanam wa muy huwa waaye alayhi salaatu wasalaam moom ba mu ganee àdduna da doon wax subuuxun qudduusun rabbul malaaikatu war ruux ma nga naan subhaanallahi walhamdulillahi wa laa ilaha illa allah wallahu akbar ma nga naan allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhaanallahi bukratan wa asila kon nag wa qila sabaxa fi takbiri zil azami ashraful xalqi moom day am na sécurité am na shifaa'u am na yolde am na barke moom juddu ba am na lewet moom yonent bi am na texe moom yonent bi lépp moom la moom lépp moo ko moom am nun shifaa'un thawaabun thumma maymanatun xilmun wa saadun li badrin nayiril amami aha aha ashraful xalqi mu ni alayhi salaatu naan li badrin ñel na weer wi bi na yirin aji leer amami ba aji mat xanaa xamoo ni bi alayhi leeram gi dafa daj àdduna daj alaaxira daj asamaan yi daj suuf yi nayirin amami leerug yonent bi fépp fu jant bi yegg rek leeru yonent bi yegg na fa fépp fu weer wi yegg leeru yonent bi yegg na fa ndax ñooñu kat ñu ngi leen barancé ci leeru rasulullahi ashraful xalqi kon nag lil badri li badri ñeel na weer wi weer wi nga xam ne nañ yirin aji leer la amami aji matalek leer la aji mat ji leer la aji matalek leer la lan la am am nun sécurité te mooy kóolute shifaun am na saafara sawaabun am na yool summa maymanatun topp mu am barke xilmun am nag lawet wa saadun am nag texe yooyu yonent bi daje nag dajale ko am nun mi ko jële ci amina shifa un ma ko jële ci shafa mi ko dooñ sawaabun ma ko mu ngi ko jële ci suwaybatu maymanatu suwayba mii mooy ki nga xam ni moo ko jëkka nàmpal nekkoon jaamu abu lahab mu nàmpal ko ñëw bégal abu laxab mi nga xam ni moom moo ko moomoon mu doonu jaamam ba mu ñëwee ne ko amina am na doom bu góor mu ne ko goreel naa la moom abu lahab goreel naa la téere yi wax nañu ne abu lahab bi mu génnee àdduna gis nañ ko ci ay nelaw laaj ko noo def ak sa xaal mu ne maa ngi safara ñu ngi may mbugal de waaye dey avantage bi ma am mooy altine bu jot danañ ma féexal woyofalal ma mbugal sama ñaari ceti baaraam yi ma ciy nàmp ndox mu sedd di ci naan ndox mu sedd te ku ne xam na ni safara amul ndox mu sedd lama ko may nag mooy keroog bi yonent bi juddoo moom guddik altine bésu altine ci la juddu keroog bu yonent bi juddoo suway batu sama jaam boobu ñëw ne ma amina mucc na am na gone ma bég ba goreel ko mbég moomu ma amoon moo may altine bu jot ñu wàccee mbugal ci man woyofal ko sama baaraam yi ma ci naan ndox mu sedd ngir mbég mi mu amoon ci guddik yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon ane ñun ñi nga xam ni vingt 24 heures sur 24 dañuy béggee yonent bi bés bu ne dañuy gàmm samedi bu jot dañuy gàmm weer wu jot dañuy gàmm at mi yépp dañuy gàmm aha kon kay ñun texe nanu parce que ci mbég lañu dëkk di béggee yonent bi di ko béggee rek di ko béggee rek comme yéefar bii di abu lahab yàlla rëbb ko ci alquran tabbat yada abi lahabin wa tabb maa agna anhu maaluhu wa maa kasab sa yaslaa naaran zaata lahab wa mraatuhu xammalata alxatab fi jiidiha xablum min masad moom ak jabaram ak i doomam ñépp yàlla rëbb leen mbugal leen alak leen segam saay-saay boobu yàlla rëbb ko moom mooy am mbugal mu ñu woyofal ci kawam altine bu jot ngir mbég mu amoon ci guddig yonent bi waaye massa ñun mu jaral ñu lu ne ñu ciy ñàkk sunu alal di ci tuur sunu ñakk di ko bége di ci kontaan di ci bégalante ngir sopp gu ñu sopp rasulullahi ashraful xalqi kon nag gàmmu leen de ku gàmmu gàmmuleen leen ku gàmmuwul gàmmu leen ku leen teree ku leen jéem a tere gàmmu leen ko te xam ne kooku texewul du nit ku baax ak koo mën a doon nag donte dañ lay wooye boroom xam-xam xamoo tus képp kuy tere gàmm wala ngay tee kenn gàmm texe texe di ñeel na la texe di ñel na la yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañu ci yàlla mu moo tax am nun shifaun sawaabun suma maymanatun amnun mi ngi ko jële ci yaayam amina shifaun ma ngi ko jële ci shafa mi ko dooñ mi ko rewli sawaabun ma ko jële ci suwaybatu mi nga xam ne moo nekkoon jaamu abu lahab ñu goreel ko keroog bi mu nampee bi mu nampale yonent bi suma maymanatun barke mi ngi ko jële may mi ngi ko jële ci ummu ay mana ma ngi ko jële ci eh, xalimatu saadiya saadun man ko jële ci fataatu saadiya ko doon nampal liikat mooy solos màggug yonent bi alayhi salaatu wasalaam mel ni waxtu wi dab nanu fii rek la ñuy taxawani incha allahu taala ci beneen numéro sen mbokk seen xarit seen mbokk alxaaji bàcc sàmb wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammad alhamdulillahi rabbil